wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mustamiuna alkiram al aizza assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fa bifadlillah wa machiatihi jitu liqaana alyawm فوجدت هذا السؤال قد طرح نفسه على بساط إخواننا الناخبين ألا وهو lima tuti sawtaka li murashaxin ma duna murashax aaxar mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala bi nu wërsëgal nu daje ci bis bu tedd bi daje rekk fekk benn laaj ci taabalu risaalatul quraan mu koy laaj mbokk yiy wote mu ni lu tax yow miy wote nga ni diw ngay woteel te doo woteel diw dernièrement j'ai posé au candidats à la présidence de la République la question suivante pourquoi veux-tu coûte que coûte être président de la République et nous étions arrivés à la seule réponse valable qui légitime une candidature à l'exercice de la magistrature suprême aux yeux de l'islam c'est-à-dire Je me présente pour instaurer la justice, rétablir la paix et la sécurité et améliorer la qualité de vie des citoyens mbokk yi sunu ndaje mi mujj laajoon nañu ñiy laaj di dagat baatu askan bi ngir jiite réew mi ne leen yow lu tax nga xar sa tànku tubéy ni faw bëgg nga ñu fal la nga nekk sunu njiit di nekk président bi bi nu ko càmbaree gis nañ ni benn tont rekk mooy bi nga xam ni moo tax nit war a mën a taxaw ci bëtu lislaam ni fal leen ma ma jiite tont loola mooy bu ngeen ma falee danaa taxawal yoon bu ngeen ma falee danaa taxawal jàmm ak kaaraange danaa fexe ba dund gi gën a naat ci képp kenn ku yewwoo ci réew mi su ma ko mënulee ci ñiy yewwu ci àdduna bi Maintenant, à toi, ami électeur, pourquoi as-tu choisi de parrainer ou de voter pour tel candidat et non tel autre léegi nag suñu laaj mu ngi jëm ci yow miy wote yow itam lu tax nga tànn ni diw lay woteel diw laa bëgg mu falu bëgguma diw falu les meilleurs parmi nous diiron pour répondre ils diront voter pour celui qui est à leur donner de la nouriture de l'eau et de l'électricité à moindre prix. Et souvent, pour ne pas dire toujours, ils diront, nous votons pour le plus éloquent, celui qui sait toucher nos cœurs par la beauté de ses discours et de ses promesses. mbokk yi laaj bi ñi gën ci ñee ñun dinañ ne dañuy wote pour ki nga xam ni kat dana yombal dund gi lekk gi wàññi ndox mi wàññi njëgu électricité bi Eh, bu la neexee nga ni saa soo laajee laaj bi li gën a bare ci tont yi mooy kii moo gën a mën a wax luy dugg ci sunu xol li muy wax rafet na li muy dige yéeme na dige yi rëy na te bare et d'entre nous qui n'ont ni valeur ni principe diront voter pour celui qui a les moyens matériels de les soudoyer de les corrompre de leur donné quelque chose mbokk yi su dee nag ñi nga xam ni ñoo dellu gannaaw yées ci ñun amuñu benn mbaax ñooñu dañu naan ñun ku mën a joxe rek ñu woteel la rokki mi rokki wala boog nu golo xam boote doomam c'est ainsi que pour la majorité d'entre nous l'élection quelle qu'elle soit et en particulier l'élection présidentielle est devenu un jeu de dupes où la plupart des candidats corrompent les, les électeurs pour mettre la main sur la fameuse caisse noire et s'accaparer des richesses du pays pour s'enrichir, pour mettre la main, pour s'enrichir de façon éhontée et malhonnête, eux et leurs partisans, s'accaparer des richesses pendant sept ou cinq ans sans avoir de compte à rendre à personne. c'est aussi pour eux le moyen privilégié d'accéder au pouvoir absolu, pour soumettre toutes les institutions du pays à leur volonté et à leur caprice. mbokk yi noonu ngay fekkee ñi gën a bare ci ñun élection bu mu mënti doon rawatina élection palu njiitum réew fola boo xam ne ku ne yaa ngi jéem a nax sa moroom ñiy laaj baat yi ñu ngi ger ñii nga xam ni ñoo ko bëgg nangu nañu ñu ger leen ñëlee ngay gere ngir lan ngir ñu fol leen ba ñu jot ci caisse noire bi mën a teg seen loxo ci alalu réew mi di buur ak bum mi di am alal ñoom ak ñi ànd ak ñoom diiru juróom ñaari at yoo xam ni kenn du leen ni kenn du leen ni noona isam lañuy ñuy a faloo pour mën a yor nguur gi ba mu jeex comme fii buur ak buum mi moo fi am bu ko defee kuréel yépp yi nekk ci réew mi nga not leen lu la neex ñu def loo bëgg ñu wax foo joxañ ñu xool foofu quant à électeur autres électeurs qui acceptons de nous laisser corrompre nous considérons les élections comme une vraie période de vache grasse nous nous activons en manifestation improvisée afin de mettre la pression sur le pouvoir sortant pour quelques infrastructures de base, une baisse temporaire des prix des denrées et quelques miettes de toutes choses mbokk yi bu dee ñun ñuy wote ñun ñi nanguñu gernu pour ñun élection yi moom jamono yi ngóob la rek ñu dal di taxaw yuuxu reeteet pour teg pression nguur gi nga xam ni moom mooy génn pour ni que ah nanu profiter parce que suñ nu defaralul nangam ak nangam duñu ko am suñu nu wàññilul njëg yi duñu ko am lu ne ñu fexe ngarañ ci pour fortaatu ci dara pour certains d'entre nous amis auditeurs l'élection est aussi un moment inespéré de trouver notre dépense quotidienne et nous assurer quelques jours de sécurité alimentaire familiale avec les 5 000 ou 10 000 francs qu'on nous paie pour être simplement présents au meeting dans le seul but de créer l'illusion optique que le candidat organisateur a un monde fou derrière lui et qu'il a déjà remporté les élections mbokk yi ñeneen ñu bare ci nun jamono jamono bu neex la boo xam ne bii ñoom gis nañ ni bis bu ne mën nga am sa dépense te doo ci sonn ndax yow dañu lay fay junni wala ñaari junni ni la li ñu bëgg mooy nga dugg ci kaar bi rek nga ñëw teew ci mitin bi bu ko defee nga dolli ñu mbooloo nit ñëpp yaakaar ni feesal nanu mbooloo ñii ñëpp ñooy ñi ànd ak nun di milité di woteel bu ko defee ci xelu nit ñi ñu ne ah diw de mbooloo mi mu àndal gañe na ba noppi C'est un jeu de dupes dévalorisant pour l'électeur et le candidat, qui en réalité ne se trompent qu'eux-mêmes. Un jeu de dupes contraire aux critères d'élection enseignés par le Coran, un jeu de dupes qui viole l'enseignement de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed paix et salut sur lui. mbokk yi lii ñu gis ñu koy def naxante la naxante boo xam ne dana doyadal kiy laaj baatu réew mi waaye day doyadal ki nga xam ni itam moom moo taxaw nangu ñu jëflanteek moom ci bii melokaan ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la yàlla wax mooy sa bopp rekk ngay nax seen doxalin bii nag safaanoo na ak li alquran jàngale ci naka la élection war a demee seen doxalin bi jalgati na li yonent bi sallallahu jàngale ci ni nii kat la élection war a demee bu ñuy fal nii ak nii la ñuy jaar lu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loolu yomb na borom bi yal na nu ko defal التسليم من يد التعظيم زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله Voici, amis auditeurs, les critères que le Coran met en avant pour choisir un candidat. C'est la bonté de caractère, la générosité, le désintéressement, la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala, le don de soi. En résumé, l'ensemble des valeurs humaines positives. mbokk yi sart yi alquran sartal kiy laaj réew wala mu bëgg falu mooy faw mu am jikko yu rafet faw mu nekk ku tabe laa biir faw mu nekk koo xam ne soxlawul ci nit yi dara gëm yàlla maanaam nga ni rek mbaax yi nga xam ni moom mooy jekkal doomu aadama faw mu nekk ci moom le Coran nous propose l'exemple de l'accession de Joseph paix et salut sur lui au pouvoir en Égypte dans la sourate numéro 12 qui nous indique qui doit mériter notre voix notre vote notre carte d'électeur jox ñu misaalu yont yàlla yuusuf alayhi salaam na mu yeggee misra égypte ba yéeg ca nguur ga xam nga ne saar fukk ak ñaareel bi ñu tudde yuusufa lépp ci moom lay wax pour jàngal nu kan moom lañu la ñu war a wateel kan la ñu war a sànnil sunu carte ami auditeur Joseph alayhi salam fut jeté en prison sur de fausses accusations. Il y resta plus de sept ans jusqu'au jour où il interpréta le rêve du roi avec beaucoup de sagesse, de générosité, de savoir, ce qui révéla son savoir et attira toutes les attentions du royaume sur lui. Émerveillé par son savoir et sa générosité, le roi ordonna Amenez-le-moi ici, tout de suite. mbokk yi alquran wax nu yont yàlla yuusuf ñu tuumaal ka tëj ka kaso mu def a sinin lu mat lu ëpp juróom-ñaari at jàpp juróom-ñeent ba bis ba buur génte boroom xam-xam yi ci réew mi yépp ni adhasu ahlaam ñun mënunu firi mu firi ak xam-xam ak xereñ ak yéwén ci joxe bi bi xam-xamam feeñee buur bi daal di ni ituuni bihi indil leen ma si à la surprise générale Joseph refusa de sortir de prison il dit à l'émissaire retourne auprès de ton roi et demande-lui d'éclaircir d'abord la raison pour laquelle les femmes se coupèrent les mains dans une sorte d'hystérie collective mon seigneur à moi Dieu subhanahu wa ta'ala sait bien que c'était une ruse des femmes mais ton seigneur le roi d'Égypte lui mbokk yi ñu ne duma génn ñépp jaaxle ni ko lu tax doo génn mu ne irja ila rabbika fasalu ma baalu niswati laati qattaana aydiyahun dellul ca bu ci sa buur nga laaj ka mu leeral d'abord mbiru jigéen ñi nga xam ni ñoo tax ma dugg kaso ña doon daggate seeni loxo inna rabbi bi kay di hinna alim sama borom xam na ne ñoom dañu ma doon fexeel mais yow sa borom xamu ko laay juróom fukk la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui a magnifié la noblesse de caractère de son frère le prophète Joseph alayhi salam il a mis en exergue sa dignité sa grandeur d'âme et sa patience dans le hadith authentique rapporté par par Abu Saïd al-Khudri dit le prophète alayhi salam dit nous sommes plus enclins au doute qu'Abraham qui dit Seigneur montre-moi comment tu ressuscites les morts Dieu lui dit Abraham est-ce que tu doutes il répondit non Seigneur c'est juste pour que mon cœur s'apaise mbokk yi ki gën ci ñi yàlla bind yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ali Euh, bàkk na ci yàlla Yuusuf alayhi salaam ci jikkoom yu rafet ya ci ngorom ga ci tabam ga ci muñam ga ci xadis bu Abu Saïd al Xudri radiallahu anhu nettali moom ki yàlla yónni mu ne nahnu axaqu bi shakk min Ibrahim nun noo gën a yeyoo sikki sàkk ka Ibrahim bon bu leen yaakaar ne Ibrahima da doon sikki sàkk ba mu ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta yow sama borom wan ma ni ngay dekkale way deeñi qaala yàlla ne ko awalam tuumin yow Ibrahima ndax da ngay sikki sàkk gëmoo mbaadu qaala balaa kañ gëm naa walakin li yatma inna qalbi waaye dama bëgg sama xol dal bi zikrillahi tatma innil xol le prophète alayhi salam poursuit et dit Dieu subhanahu wa ta'ala bénisse Lot car il s'était adossé à un pilier inébranlable quant à moi si j'avais séjourné en prison aussi longtemps que Joseph je ma précipiterai d'en sortir à l'instant même ou l'émissaire du roi me transmettra sa décision de ma libérer mbokk yi mu ne yàlla na yàlla yërëm luut ngalawaay moo ne luut day ba mu naan ak a neexoon ma wéeru ci jiñ wu dëgër wéeru woon na ci ruknin shadid jiñ wu dëgër man nag law la bistu fi sijn maa la bisa yusuf alayhi salaam la ajabtu daa'i su fekkoon li yuusufa sax ci kaso bi sax naa ko ci biir ba ma ba ma ndawal buur la wooye ni ma génnal danaa génn mais ami auditeur si Joseph n'a pas voulu sortir ce n'est pas par caprice ou par fanfaronnade il s'explique et dit j'agis ainsi pour que mon tuteur sache que je ne l'ai pas trompé avec sa femme en cachette car Dieu subhanahu wa ta'ala mon Seigneur ne cautionne pas la ruse des traîtres. Pour autant, je ne m'innocente pas, car l'âme incite toujours à faire le mal, sauf celle que mon Seigneur, dans sa miséricorde infinie, préserve du péché. Mon Seigneur est pardonneur, miséricordieux. mbokk yi du pour euh, wanewu wala puukarewoog tiitaru moo tax yont yàlla yuusufa ne du génn wax na lu tax mu ne li tax nangu may génn léegi nii mooy li yaalama an ni lam axunhu bil xay ngir sama njaatige xam ni man ma ak soxnaam waruma ko ci kump wa anna allaha laa yahdi kaydal xaa'ini sama boroom nag yàlla moom du jubal mukk pexeb kuy wor wa ma ubarri'u nafsi man nag setaluma sama bopp sel wane jéem ma feeñal sell selllu inna nafsa am amaratum bisu xam nañ ñun ñëpp ni bakkan day digle toujours te du ci jóg di digle lu bon illa ma rahima rabbi lu dul bakkan ba sama borom yërëm inna rabbi ghafurun rahim sama borom mooy kii bale mooy boroom yërmande yu matale yi suratu Yusuf amis auditeurs après avoir accédé à la requête de traiter enfin le dossier de Joseph alayhi salam le roi constata son innocence et émerveillé par ses valeurs, sa hauteur d'esprit et sa noblesse de caractère, il dit, Amenez-le-moi tout de suite. Celui-là, je me le réserve, j'en fais mon conseiller personnel. Verset 54 mbokk yi bi buur bi xoolaatee mbiru Yuusufa gis ni Yuusufa deful dara dañu ko tuumaal tooñ ka buur bi yéemu gannaaw ba mu yéemoo ci xam mu yéemu nag léegi ci mbaax ak gore ak fegu gi nekk ci yuusuf alayhi salaam mu dal di ni ituuni bihi dama ne dem leen ngeen indi ko léegi léegi astaxlisu li nafsi kii moom jagleel naa ko sama bopp def naa ko sama conseiller def naa ko sama premier ministre teg naa nguur gi ci loxo quand le verdict de l'innocence de Joseph fut prononcé il accepta de se rendre auprès du roi Et le Coran di quand ils se le roi lui di à partir de d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu seras à mes côtés, investi d'une autorité légitime et jouissant de ma totale confiance mbokk yi bi nga xamee ni atte nañu ko ba feeñal ni Yuusufa gore na ci lépp li ñu ko doon tuumal mu door di nangu nag wuy ji buur bi falamma kallamahu bi buur bi waxeek moom waxtaan ak moom mu gis xel mi ne ci yuusufa xam-xam gi mu ne ko innaka al yawma naa makinun amin yow li ko dale bisu tey yow taf naa la ci sama bopp makin jox naa la nguur jox la doole aminun wóolu naa la kóolite gu mat sëkk gudul jàng du yang nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola mën na borom bi yàlla na nu ko defal Les savants attirent notre attention sur deux détails dans ce passage du récit de la vie de Joseph. Le premier, c'est quand le roi constata le savoir de Joseph, il demanda qu'on le lui amène simplement. Le second, c'est quand il constata sa noblesse de caractère, son honnêteté, ses principes et ses qualités, il l'éleva au rang de conseiller particulier sans même encore l'avoir vu mbokk yi boroom xam-xam yi ñu nu bàyyi loonu xel ci ñaari mbir ci xisa bi ñu ne bi ci njëkk mooy buur bi bi mu gisee xam-xam bi yont yàlla yuusufa am dafa ne rek indil leen mag waaye ba mu gisee jikko yi mu làmboo gis njubam ak ngoram mu daal di ni kii fal naa ko def ko sama conseiller na ñëw fal na ko te gisu ko c'est donc en tant que savant en tant qu'homme de qualité que Joseph alayhi salam accepta la proposition du roi il l'accepta non pour jouir et profiter personnellement du pouvoir mais pour relever les défis des quatorze ans à venir les sept ans des vaches maigres et les sept ans des vaches grasses dont le roi avait rêvé mbokk yi bon nga ni Youssouf bi muy falu di nangu li ko buur bi wax moom am na qualification yi ndax boroom xam-xam la boroomi baax la bon nangu na ñu falka du pour mu profiter ci nguur gi bànneexu puukarewu waaye pour mu taxaw li nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel ci fukki at ak ñeent yi di ñëw juróom-ñaari atu nag yu ràgg yi ak juróom-ñaari nag yu duuf yi nga xam ni moom la buur bi géntoon muy firi dund gi Égypte war a traversé Yuusufa ne mu taxaw yóbbu réew mi ba mu jéggi loolu ci jàmm ak salaam écoute sa réponse et tu comprendras qui parmi nous doit mériter que tu votes pour lui Joseph dit au roi, confie-moi la gestion du pays, du trésor public, car un gestionnaire honnête et savant. Verset 55 déggal tontu Yuusufa moo lay wax kan la ñu war a fal kan nga war a woteel xaala jaalni ala xazainil ard xam nga ko ñuy fal souvent dañ la naan fii laa lay fal waaye Yuusufa moom moo ne fii nga may fal mu ne man jox ma màngasiinu réew mi alalu réew mi jox ma ma saytu ko inni xafiis man ku mën a gérer la alim ku am xam-xam la il ressort donc de l'enseignement du Coran que pour prétendre à la magistrature suprême il ne suffit pas d'avoir des diplômes c'est-à-dire des connaissances il faut aussi en plus des connaissances du savoir être un homme de principe qui incarne les valeurs humaines fondamentales, valeurs d'honnêteté, de sincérité, de vérité, de justice, d'équité, de générosité et de serviabilité. Toutes ces valeurs, toutes les valeurs humaines sont résumées dans les deux attributs de Joseph, paix et salut sur lui, Hafizun Alim. Je suis connaisseur et je suis digne de confiance. Mbokk yi alquran li muy jàngale day feeñal ni am xam-xam kese amit diplôme yu dul jeex doyul pour nga jiite réew gannaaw boo amee xam-xam bi danga war a nekk nit koo xam ni dafa làmboo ay jikko yu rafet làmboo ay mbaax war nga jub maandu dëggu war nga nekk koo xam ne dangay dox ci dëgg ak yoon di am ci dëkk bi yemale ñépp war nga bare yërmande war nga laa biir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 tiré de la sourate Yusuf alayhi salam sont les mêmes que les enseignements des versets 246 à 248 de la sourate La Vache qui nous raconte l'élection d'un roi juif après la mort de Moïse paix et salut sur lui yi lii sóoratu yuusufa di nu jàngal moom la nu sóoratu bàqara di jàngal ca laaye ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ba ca laaye ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom ñett fanu yàlla di nettalee élection ba ñu doon fal palum njiitum yahud ya gannaaw génn àdduna yont yàlla Muusa le peuple s'est mobilisé pour que leur prophète leur choisisse un roi pour les organiser et que ce roi travaille à leur sécurité leur prospérité mbokk yi nit ña ñëpp ñoo mànkoo ñëw ci seen yonent bi wuutu bi ñëw gannaaw Muusa alayhi ni ko tànnal nu njiit njiit loolu bu ko defee mu nose sunu mbir organiser nu waaye mu liggéey ngir nu am jàmm ak kaaraange dellu ci waat ci naataange permettez-moi avant de passer de rappeler aux imams et aux guides religieux, toutes catégories confondues, que leur rôle est celui de ce prophète, imams et guides. Quand ton peuple doit choisir son président ou un responsable quelconque, tu n'as pas le droit d'avoir peur des gens qui ne savent pas mbokk yi ma wax euh, taan ak sunu mbokk yilimaan yi ak sunu mbokk kilifa diine yi ak niveau buñ ci tollu nag ñu fàttaliku ni seen rôle seen taxawaay moo war a nekk taxawaayu yonent bii alquran di nettali yéen imam yi ak kilifay diine yi bu seen réew dee tànn président wala benn képp lu ñuy dénk ay responsabilité yéen amuleen sañ-sañ ragal nit yi topp ñi xamul ni patt pattaaral Tu dois prendre position pour celui que tu penses être le plus apte par rapport aux critères coraniques. Et une fois ton choix fait, tu dois prendre tes responsabilités et orienter tous ceux qui te font confiance vers le meilleur candidat à ton avis en te basant toujours sur le Coran et la Sunna. Ton rôle est d'orienter les disciples et ceux qui placent leur confiance en toi. Mbokk mi yilimaan mbokk mi di kilifa diine war nga wax foofar war nga xool ñépp ñuy laaj baatu askan wi nga xool kan moo ci gën a dëppoo ak ni alxuraan melal nga ni kii laa tànn nga jël sa responsabilité ñi la topp ànd ak yow gannaaw bi nga sukkandikoo ci alxuraan ak sunna wax leen ni kii moo ci tane ci li alxuraan di wax ndax ñooñu kat dañu la wóolu dénk la seen àdduna di la yaakaar ci seen àllaxira le marabout l'imam ou toute autre autorité religieuse ne nous oriente pas dans nos choix concernant ce monde comment nous aideront-ils à accéder au paradis votre rôle en tant que religieux n'est pas d'être neutre vous avez l'obligation de prendre position vous ne pouvez pas faire moins que les politiciens qui eux appellent les gens à voter pour eux au de quoi de rien mbokk yi yow sëriñ nga yow yilimaan nga yow kilifa diine nga yow sa wareef mooy lépp lu nuy dugg ci àdduna nga wax ñu ci fan lañu ñu war a teg suñu tànk soo deful lii ñun nan lañuy ñuy tàbbee aljanna ëllëg ndax aljanna fii la ñu koy jote ci li nuy yëngatu ci àdduna bi sa rool du nga ni man maandu naa ci mbir yi duma ci wax dafa nekk wareef ci yow nga jël position mënuloo nag euh, yées politicien bi parce que politicien bi lan moo tax mu ñeme taxaw ni man mi woteel leen ma ak woteel leen diw te yow nga bokk ci réew mi te warloo ñeme taxaw ni woteelal diw ak man diw laay woteel les politiciens ne nous ont pas promis de nous guider au dans l'au-delà ils veulent seulement nu giddee dans ce monde par contre vous imam autorité religieuse vous tous qui tirez votre autorité et votre légitimité de la religion, vous avez la responsabilité de nous guider jusqu'au paradis en nous mettant sur la bonne voie dans ce monde. mbokk mi politicien bi moom digunu lu bare digunu lu dul ni damay ànd ak yéen ci àdduna bi fala yem su ma deeyee wala ngeen dee wala ñu tàqalikoo fala yem yow nag mii nekk ci diine ji yow da nga ñu dig ni danga nga nuy wommat ba tàbbal nu aljanna te yow li tax ñu topp la wóolu la yaakaar la gëm la mais diine la boo nu nanguwul wommat di nu teg ci yoon fii ci àdduna naka ñu nga ñuy yobboo ba ci biir aljanna ami auditeur imam ami auditeur marabout ami auditeur guide religieux la bonne voie na sa limite pas au culte c'est-à-dire faire le zikr, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. La bon voie englobe le culte et tous nos actes dans ce monde. yéen ilimaan yi yéen kilifa diine ak i sëriñ yoonu siraatul mustaqim yamul ci euh, ponku lislaam yi dafa ëmb ponku lislaam yi waaye ëmbaale lépp lu ñuy def ci biir àdduna bi ci kaw suuf car autant Dieu subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes sur notre pratique cultuelle autant Dieu subhanahu wa ta'ala nous demandera des sur tous nos actes tout ce que nous avons fait dans ce bas mbokk yi yàlla subhanahu wa li mu wax mooy dana luññatu layeeg ñun sunu jaamu yi ponk yi waaye dana luññatu layeeg ñun sunu bépp jëf sunu bépp nokki ci lan lañu ko jeexal par Dieu vous, autorités religieuses et imams. dites le choix de candidats que nous faire durant cette élection et tous nos autres choix de vote lors des élections précédentes, dites-nous si ces choix ne figurent dans le registre de nos actions dont parle le verset 49 de la sourate La Caverne. Est-ce que le verset 49 sourate La Caverne parle seulement de notre pratique culturelle ou de tout ce que nous dans ce monde, y compris les élections? maa ngi leen di door pakku yàlla bi yéen yilimaan yi kilifa diine yi sëriñ si di leen laaj ndax tànn gi ñuy tànn diw ci élection yi ak tànn yi nu mës a tànn ci élection bu ñu mënti doon kenn bindu ko ci sunu carnet yi jëf carnet boobu laaye ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratul kahfi di tudd ndax laaye bii ma la wax ci sooratul kahfi wàllu julli rek la wax wala dafa làmbaale lépp lu nu jëf ci àdduna te li nuy jëf élection ci la bokk le verset 49 de la sourate kahfi dit quand remettra à chacun le registre de ses actes tu verras les malfaiteurs effrayés par le contenu de leur registre ils s'écrieront malheur à nous nous sommes perdus mais quel est ce livre qui n'a omis de consigner ni les petits ni les grands actes, ils seront confrontés à tout ce qu'ils ont fait. Ton Seigneur ne cause du tort à personne mbokk mi laaye jiima lay junj lii la wax wa wudi al ñu teg nag bascule yi teg téere yi fataral mujrimina mushfiqina mimma fii nga gis saay-saay yi tiit jaaxle ngir li ñu fekk ci seeni téere ñu ngay yuuxu naan yaa waylatana maa li haada alkitaabi laa yugaadir saxiratan wala kabiratan illa ahsa waa lan moo dal sama carnet yi jëf yi bàyyiwul dara lu tuuti wala lu rëy lépp bind naka mu ngi nii wa wajadu ma amilu xaadira yàlla mu ne lépp li ñu jëf ci àdduna dañu koy fekk mu teew wala yadlimu rabbuka ahad sa boroom du tooñ kenn par Dieu amis auditeurs vous autorités religieuses et imams Dites-nous si le choix de candidat que nous allons faire durant cette élection et tous nos autres choix de vote lors des élections précédentes ne figureront pas dans le registre de nos actions, dans ce livre dont parlent les versets 27 à 29 de la sourate Jaasiya mbokk yi yéen sunuy yilimaan yéen sunuy sëriñ yéen sunuy kilifay diine ñu ngi leen di dóor pakku yàlla bi di leen laaj ndax tànn bi ñuy tànn ci élection yi ak tànn yi nu mës a tànn ci élection yépp ndax malaaka yi binduñu ko ci sunu karne yi jëf booba suratul jaasiya di junj ca lay ñaar fukk ak juróom-ñaar ba ñaar fukk ak juróom-ñeent est-ce que ces versets 27 à 29 de la sourate jaasiya parlent seulement de notre pratique cultuelle ou de tout ce que nous faisons dans ce monde y compris les élections mbokku kilifay diine yi mbokku ilimaan ñu leen di laaj ndax laaye yii ñaar fukk ak juróom-ñaar ba ñaar fukk ak juróom-ñeent suratul jaasiya wàllu jaamu yàlla kese lay wax ci ponk lislaam yi wala dafa làmbaale lépp lu nuy jëf ci kaw suuf te li nuy jëf ci kaw suuf élection yi ci la bokk les versets 27 à 29 disent dans les cieux sur terre et le jour du jugement dernier le pouvoir appartient exclusivement à Dieu Le jour du jugement, les négateurs seront perdants. Ce jour, tu verras toutes les communautés agenouillées. Chaque communauté se présentera devant son livre et chaque communauté sera rétribuée selon ses actes. Voici notre registre qui, en toute vérité, parlera à votre place, car nous enregistrions dans le monde tout ce que vous faisiez. mbokk yi laaya yi lii la wax walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu saa mu ne yàlla moo moom nguur ci asamaan moo yor nguur ci suuf bis penc moom rekk moo fay buur yawma izin yaxsarul mubtiluun bis penc ñi doon kàccoor di weddi yépp dañuy sànku dañuy sooy nga gis xeet yépp doo seen tànk àttanatu leen ñépp ngi ni groupe sukk kullu ummatin tudaa ila kitaabiha mbooloo mu ne ñu woo ko ni ko taxawal ci sa kanamu téere ahlul alquran taxaw ci ah, ci kanamu alxuraan katolik yi taxaw ci kanamu linjiil yahud yi taxaw ci kanamu eh, to tawraat kenn ku ne taxaw ci sa téere yàlla ni bisu tey damay fay li ngeen doon jëf haada kitaabuna yantiqu aleykum bilhaq sama téere baa ngi nii téere bi ñu leen doon bindal ci àdduna mu ngi nii mooy nettali téere bi di wax li nga doon jëf innaa kunnaa nastansixu maa kuntum taamaluun ñu ni mais téere bi nu mu def ba di wax ñu ni lépp lu ngeen mas a wax ci àdduna bind nañu ko ci téere bi suratul jaasiya nu ñaan yàlla subhaanahu wa bis bi ñuy teg sunu téere teg alquran yal na yàlla def sunuy jëf dëppoo ak li alquran làmb sunu téere la muy làmb dëppoo ak li alquran ëmb nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal Je vous le disais, tous les critères évoqués par la sourate Joseph alayhi son repris et expliqués par cette parabole de l'élection et du vote dans les versets 246 à 248 de la sourate La Vache. Le verset 247 raconte, leur prophète leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi Talout comme roi. Aussitôt, ils s'écrièrent Comment Talut peut-il exercer le pouvoir alors que nous avons plus que lui droit à la royauté et en plus il n'est même pas riche mbokk yi lii sóoratu yuusufa wax lépp yàlla tënk na ko ci ñett laaye yi ci sóoratul baqar laaye ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom benn ba ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom ñett boo demee ci laaye ñaari téeméer ak ñeent fukk juróom ñaar qaala lahum nabiyuhum yonent ba ni leen ba ñu nekk tànnal nu buur mu ni inna allaha baasa lakum taaluuta malikan yàlla tànnal na leen taaluuta moom la bëgg ngeen falka yéen qaalu gaa ni ko loolu mënul nekk annaa yakunu lahu lmulku alayna moom nan la mën a faloo ci sunu kaw wa nahnu ahaqu bil mulki minhu te ñun politiciens yi ñu ngi fi ñun famille yu roi bi ñu ngi fi walam yuuta saatan min al maal te amul amul alal moom barewul alal Tu as certainement remarqué, amis auditeurs, leurs critères d'accès au pouvoir, l'argent, la caution financière et appartenir à la famille politique, avoir un parti politique. Pas de candidat individuel chez eux, pas de candidat pauvre. Tu dois avoir une caution mbokk mi gis nga ni seen euh, nattukaay ñoom ceddo yu njëkkee ak nattukaayu ceddo yu mujj niroo xoolal xaalis lañu ñu tudd mooy caution bi bokkul ci famille buy falu bokkul ci famille politique bi amul parti politique comme moom candidat individuel la moom taaluuta dunu nangu mu falu ci sunu kaw ñaareel ba itam amul dara ku ñàkk woomle woo doo fi falo mais leur prophète leur explique que les critères établis par Dieu subhanahu wa ta'ala pour prétendre légitimement accéder à la magistrature suprême sont différents de leurs critères il leur di Dieu l'a choisi pour ses connaissances et son aptitude physique. C'est à une personne ayant de telles prédispositions, capacité intellectuelles et physiques que Dieu veut accorder son pouvoir. Dieu est immense dans sa grâce et savant. mbokk yi yonent ba ni leen yéen seen nattukaay ak yu yàlla bokkul de inna allaha astafaa aleykum yàlla lu tax mu falka ci seen kaw taamu ko moom bàyyi leen fi yéen mooy zaadahu bastatan fil ilmi wal jism yàlla dafa ko jox xam-xam bu doy may ko aussi kàttan pour doxal nguur wér gi yaram wala wallahu yuti mulkahu man yasha yàlla nag ñu mel nii la bëgg ñu yore nguuram wallahu waasiun alim yàlla mooy kii màngasinam ak i mayam du jeex alim moo xam ku ko neex mu ko koy jox le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que Dieu subhanahu a chargé de nous expliquer ses recommandations, nous dit à travers le conseil qu'il donna à Abu Zar al-Ghifari, lorsque ce dernier le sollicita pour une nomination à un poste de responsabilité gouvernementale. Il lui dit, Abu Zar, tu n'as pas les aptitudes pour le pouvoir. Sache que le pouvoir sera source de honte et de regret le jour du jugement, sauf pour celui qui y a accédé en réunissant tous les critères requis. Puis il respecta ses devoirs d'homme d'État. mbokk ki gën ci ñi yàlla bind yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ali moom la yàlla wax ni lu ma wax rek firil ko gaañi mu leer ci ñoom mu leeral lañu jaare ko ci ba Abu Zar ñëwee ni que dama bëgg nga fal ma jox ma ci gouvernorat yi benn mu ne ko yaa Aba Zar yow innaka daif yow amoo kàttanu doxal nguur te nguur gi amaanatun kóolute la kóllëre la boo xam ne yàlla da koy laaj ëllëg wa innaha yawmul qiyaamati xisyun wa nadaama te gis nga ñi yor nguur ñëpp ñi ci ëpp bis dañuy torax ruus rëcc lu ñu doon yore nguur illa man axazaha bi axiya lu dul ki ci jot rek fekk na mu ci war jote la ci jor wa adda lazi alayhi fi fiha mu doxalitam la ko war ci nguur gi toujours amis auditeurs s'adressant à Abou Zar al-Ghifari le messager la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui s'adresse à certains d'entre nous qui se connaissent Et il nous dit, tu n'es pas apte pour l'exercice du pouvoir. Et je te souhaite la même chose que pour ma propre personne. N'exerce aucun pouvoir. Serait sur deux individus uniquement et ne te propose jamais, jamais, jamais, de gérer les biens de l'orphelin. Mbokk yi xam nañu sunu bopp ki gën ci ñi yàlla bind mu wax ak képp kenn ci ñun jaare ko ci Abu Zarr fa mu def Abu Zarr def fi Mouhamed Cherif Diop def fi imam babakër Diop def fi soxna Abibatu def ci sa tur mu ni la yow diw gis naa ni manoo yor nguur te man li ma bëggal sama bopp laa la bëggal laa taamaranna ala snayn wala tawallayanna maala yatim mu ne nga la waaye góorgóorlul même ñaari nit bu ñu la woon jiite nu bañal bu leen jiite mu ne buñ la nee alalu njirim bii denk nañu la mu ne bu ko garde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 من سيوف الله Très chers amis auditeurs qui nous accompagnent en ce jour béni, nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah, autour des modalités de l'exercice du pouvoir politique, après avoir bien sûr conclu notre séance par cet avertissement que nous lance la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit vous avez tellement envie d'accéder au pouvoir. Pourtant, le pouvoir sera source de désespoir le jour du jugement. Quelle excellente nourrice que le pouvoir par ses avantages et ses plaisirs éphémères, mais quelle méchante et brutale sevreur pour le gouvernant qui règne dans l'injustice et vole l'argent du contribuable, ajoute Cheikh Al-Albani. mbokk yi ñu yëkkati sunu jataayu tey di joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ci ayu bis yi nu dëgmal ñu taxaw ci naka lañuy ñuy doxale nag nguur gi nan la ko war a doxale bu fekkoon tàbbi na sunuy loxo nu tëjee artu bi nga xam ni ki gën ci ñi yàlla bind moom la ñu artu mu ni nakum sa taxrisuun alal imaara mu ni yéen xemmem ngeen xiir ngéejoo jot ci nguur gi wa sa takunu nadamatan yowma alqiyaama moo ne nguur googu réccu rekk lay doon bis penc fa nicmatil ak aka mën a nàmpale ci xéewalu àdduna yi muy lal ci sa kanam yoo xam ni yépp dafay gaaw a jeex waaye wa bisatil fatima aka bon na mu lay ferale boo xamee ni bii dee dikk na foqar ci nguur sa loxo wala alternas dikk na keneen jël nguur yi ci sa loxo nga ñàkk bànneex ya xéewal ya du des lu dul alxasrata wa tabia réccu ak lañu lay topp ëllëg di ko lijjanti cheikhul albani mu ni loola mu nga jëm ci ñi nga xam ni dañu doxal seen nguur ci kaw zulm wa axaza amwaali naasibil baatil di foqar ci alali réew mi di ko saax saaxe te tegwul ci benn yoon nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñi ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal شأنك bokki yi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international àndoon ak suñuy mbokk soxna Adja Maam Abi Dieye Mouhamad Chérif ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal na yàlla doon suñu ndimbal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqu topp yàlla gën jafe ci jamono yi nuy dund yal na nu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal yàlla defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq eggul yiir nu ci malaanam sutura yàlla jubal nu jubal sunu njaboot mbokk yi lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu am yàlla bi jaa Mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول